في كل سار وفي ذبر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مؤمن النفر أفرجاء لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله أبو رجال لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله أبو رجال لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله أبو رجال لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله أبو رجال لا إله إلا الله يا رب أبو رجال لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله dëkkuñu fi faal dañuy rootoog kusanda fees nga ñu bee dëkkuñu fi faal dañuy rootoog kusanda fees nga ñu bee bis bu saa taxawee jëfay seede borom ñaq leen jëriñoo naqareerul baro bii géej ba sa géej koo fal lay wuyoo gi géej gannaaw géej koo woo fal lay wuyoo tama laay nanum góor saa yi diine góor yëngoo ku sa maam xaram réew fu neex fal di lëmbe sañ nga noo jàpp maa nga yeew fal di maye bismillaay ndongay door جام دي تاكو برا أبو رجال لا إله إلا لا يا رب لا إله إلا لا أبو رجال لا إله إلا لا يا رب لا إله إلا لا لا إله إلا لا يا رب ba mi ma moo tax nga mel ak saxaar kuy nar a dem na fa jaar kuy naani paas na seeti gaar bam babum nag banaan naka pexe ndëgam dangaa xeebi sa paas waaye wate yaa nga fa gaara seetal ma si sa xiyaat ndëgam dangaa am looy joxe bàyyi saxaar doomay wate ku xam le yàlla du fi teg ku ji angaar góob sama te jël ca taw bay bex bexi Cheikh Bamba taw loo Moustapha Cheikh Ibra Fall taw bay Moustapha diggante mër wat ak safa kuy ajo war nga fa dox Cheikh Bamba am nam faddulu Cheikh Ibra Fall am nam faddulu ku gëm naa faala faddulu kon ak mu jëm di torox Cheikh Bamba bëgg la ndam Basiir Cheikh Ibra Fall bëgg la ndam Basiir ndab loo ca dem lekk ba suul gisal ma koy togg joxe Cheikh Bamba am na Abdoulaye Cheikh Ibra Fall am na Abdoulaye Fall ndar Abdou mu nekk man da waay bul weddi cee ba koy texe yàlla nan aw seen tànki bàyyi ba mujj doon seeni bàyyi ba mujj boole seeni gaay amin ndax ñëppay texe Cheikh Ibra dem na wàcc na lu ma sa aajo faju na ba xëy na ñi ba arjana nan farlu tey indi joxe kenn mos la gis sa sumu booy daawu daw ku koy mos loo ko jooy moo jara way te jara jooy ci àdduna mën a naxee déglul ma limal la ay ndamam ba gaay yi delloo xam ay mbiram ba xol yi bëgg ba dellu gëm léegi ragal yox yox jaaraama ndey sëy na mu njaay la soxna jaara yor di jaay yaako musal waay ñare njaay saw nga ñu ron a ya texe diggante njukke ak njamati dan daan naanu biteel yaa tax ñu jébalu sa teel njege yaara yi pexe mbul ak sàq ko si ger dandaa faloo ko soli buur yaa tax ba jëne defe lee toxul nga mir mën a yoroon tey ñëpp ñëpp ngi fi ñun kenn amatu lu yaa yabu mbaaxante ko bor yaa tax ba xol ba dootu fuur yaa tax mu sànni yotu nguur fab yëtu ngam ji laaj pexe a yaa tax ba Abdoulaye taxaw ji bunti dafa xaar waaye fu li bay lekk daxaar ngir sapp bamba mi jaxe te xam ne moo doonoon doom buur lu mosa wax ñu ni doxe te moom feedar ba taalugul ko saana ku ay joomanoom xolom ba daawr yox yoxi yaa tax la gaañu giir mat naa dox moom tey ji mu mat sëkk boromam nga denc dib gorom lii doy na xaat baax day pexe xamul morom sàkk na mbëri roy te moom na penko ak soowam lu yàqu dootu ñox ñox la ilaha illallah Ndakaaru jàll ginnaaw yoonu saxaar mbir mu fi rëy ba naan Ndakaar Cheikh Ibra Fall ngay laaji pexe ndax la ko doomi jaara may leral na bokk jaara tey way kaw da Cheikh Samba jaara may moo tax dënam bay bex si ndand Fall jàpp fa a Fall daf ko ñu lambul ñu taal tey ngir ginnaaw moo fay fexe leeram nga sar bay ak ku ñëw mu duy la ba fees luy ku ñuul mu ñëw gàddaay këram yi daw guddeeg bëccëg na mi do Bamba xëy sàkkim pexe ñëpp gëlëm kenn xamantu kuy sëriñam ku ne di nga daal ngir xam ne yoon na li si fa mag ñëpp dem moom mën dafa mës la toxoo koy yox wallaay laa illa la bokkay ne wujj ab sangam Tuubaa la tegoon añam Bamba ko jiitaloo ñoo ñam diggante bépp gàgguy tax laa illa illa la ma ngay jon ak tooli dërëm mi ñun bëgg junniy dërëm gis na lu weesu même itam xam na room la noonu fexe laa illa illa la sapa xalu na koy ngërëm ridwaan tijil na koy kërëm góolo ay ni yaa ngi fi wetam gis na raw yor jaxe ngërëm la yonen bay gërëm Ababacar ma jëkk gëm la Seexu Bambay gërëm Seex Ibra Faal mooy ñëkk a texe laa illa illa la médaay ba yonen bay takkal Ababacar ngir déggal la Seexu Bambay takkal Seex Ibra Faal bi su texe allahu laa illa illa la manta ba yonen bay solal Ababacar mayor parisol jël saadi xi nay tufal yàlla na ko bambi di joxe la ilaha illallah Moussa la wala fal di sàkku ngërëm yàlla na ko Seex Bamba ful te boole ko gaay yu dëggal yoo xam ne kenn ilaha illallah subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ah. bërëb bii nag mooy bërëbu maam Cheikh Ibrahima Fall ñun gëmuñu ku dut maam Cheikh Fall ëllëg yëmal xiyaam lépp lu ñu séddale bu ko amoon ñun Fall bëgguñu moo doonoon jàmbari sëñ Bamba ji moo doonoon jàmbari sëñ Bamba ji maanaam joxe jëf ak ñaq ak ñuqi joxe ak bernde kon dañuy ñaan mbolam ñabatu mam Cheikh rafal gep rek yalla suñu borom yalla yagal len fi di ñaan Cheikh Mountakha basiru yalla nako fi yalla yagal señ amni Modou menda fal yalla nako fi yalla yagal ki féré sama jamm mom moy señ Dëcce mu señ Cheikh munda fal man may Cheikh Diagne dongob Cheikh munda fal. di ñaan señ Cheikh munda fal yalla na fi yagul lo tande ak wër ci ndigal rek lañ fi ñëwee barab mam salifal dara dañ tay may waaye ñak dañ koy jaay mam Cheikh lay fal nee bakkan bu bakkan boo xam bu fekkee mooy tax nit yeggal si yàlla nee na ku ko xam nag ma ko xamal man da xaw ma ko faal nee na dara dañ koy maye waaye ñaq dañ koy jaay laay laay laa bi ñu si kër safara niiraan ba bañ ko safara niiraan ba moo ko fay moo fay safara niiraan ba mi lu laata ban daan jaamu moo ko moo ko daaneel moo dàq jinne ya moo tëye asamaan tax suuf mu taw moo waral yàlla yërëm aadama ak awa mu waral yàlla di yërëm jaam yi ci barka muhammad rasulullahi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 في كل سار وفي ذبر هماني ألا ماهٍ ما الأبصر والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لجاد من عن النفر